asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag Leewtoo TV gis ngeen ki ñu toogal Babacar la ci kàddu gi Talla Ndiaye ci caméra bi ànd suñu jigéen Aïssatou Faye madame Nia ki ñu toogal nag mooy Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye nag mooy président école de lutte Balla Gaye ñu jëm si combat bu rëy waa waa Géejawaay rawatina waa école de lutte Balla Gaye waaye tamit ay wax jóg fan yi ci diggante Elton ak ay coow ak jàppal baay jóg yu kenn xamul ñu bëgg mu leer président Moussa maa ngi lay ziar. maa leen di ziar bu baax laa Leewtoo président Moussa Ndiaye président école Balla Gaye depuis ñaata at. depuis bu ñu commencé ba léegi pratiquement. waa parce que un an la ko kenn jiite après man maa ko yore. maa ko yore maa yaatu xale bi yu fa nekk yëpp ban tool nii waaw. Moussa Ndiaye jiite écrit écrit jiite ko financièrement metti na wala. waaw lépp sport moo demee noonu muy basket muy leneen boo ko boo ko jiite day métti mais man l' essentiel da ngay am da ngay am nit rek boo amee nit dara du si métti. du yow rek yaay def ñëppay def oui. Moussa Ndiaye mën nañ xam doomu géejawaay la walla doomu fan la. xam nga géejawaay dèjà sun âge kenn dëkkul géejawaay suñuy doom ñoo fa dëkk man samay doom géejawaay lañ juddoo mais ñun suñu âge ñu am ay cinquante ans soixante ans dëkkuñu géejawaay te géejawaay bu ñëwee yàggut mais suñuy doom géejawaay lañ dëkk ban waa géejawaay lañ waaw mais jolof jolof la pire sant sant Ndiaye man Ndiaye Aliou laa waaw waaw. loolu leer na jolof-jolof mooy nuyu sama waa ji Seex Tijaan Jaw di jolof-jolof euh, tey nag nga jiite écrit muy neex di naqari mais fan yi ñu gis ne que dafa am coow bu jóg ci Elton def na lii wala wax na lii Elton wax na ci Leewtoo Balla Gaye de laaj nañ ko Kaolack mu ne loolu yëgu ko yow en tant que kilifa gi loolu ban xalaat nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. waaw toujours day am signe boo xam ne bi lii buñ ko amee rek en général am nañ victoire que ñun mosuñu am combat amul coow bu rëy. bu fekkee ne yàgg nga si làmb ji seetaana suñu combat yëpp il faut mu am coow waaw lu ñu coow coow dana mujjee sedd waaw danañu àndaat ñoom ñëpp. kon yow coow coow da leen di jig daa mel nga bëgg wax de. Ah, ko mel na de waaw. coow de dama daan dégg si ñu jigul bant sax waxuma laa nit yéen coow mën leen a ji. ñun de peut-être yàlla ju defe loolu mais mosoo gis histoire bu nu amee làmb boo seetloo en général dana am coow boo xam ne Sénégal yëpp dana si wax. mais diggante Balla ak Elton yow en tant que président école bi yow est-ce que diggante boobu dafa war a yàqu wala dafa war a dañu war a ànd nekk benn. mënut a yàqu dañ leen ànd laat ban ànd mënut a yàqu parce que tim làmb moo demee noonu làmb boo si demee am na ay caxabal yi ngay gis si biir làmb dafa am si euh, communication dafa am i caxabal am lu ne di jaxasee ak yooyu te yooyu il faut ñu bàyyi ko gone yi ñoo màggandoo ba toll nii Elton mii ñuy wax ah man de pour man Elton gis naa mu xeex. ndax bal la reyante ndax bal bu am bal la amee combat boo ko gisee si géew bi dof la kenn du jege bal la bon lii peut être incident la boo xam ne bi c'est mineur waaw. da ngeen yaakaar ay lu ñu monté la walla naan. man man na ne toujours combat bu amee il faut am na jaxasoo balla combat bu mu am mos na fi am combat ñëw na ko si piscine ak keneen muy def muy fóonante wala yooyu yëpp pour jéem a jaxase nit ñi la bu jaxase écurie bi mais écurie bi du loolu moo koy jaxase oui. kon daal yii moom ay coow xam ne tàmm ngeen ko tey. Euh, man de tàmm naa coow yu mel nii ak ñoom coow yu mel nii xam nga man moom man seen papa man fu ma ne ñoom ñëpp dañ fay ñëw ñoom ñëpp maa leen yar si ndaw ban toll nii bala maa ko yar ba may ko jabar sama biir kër bon lu may wax li xam naa ko waaw. Elton Kër dégg nañ ci ay wax muy ay wax waxi pelent ak yu mel ni ki est-ce que yooyu wax ngantaan ngeen cee dindi wax naa ko bu yàgg rek ñëw na si bureau bi nee naa ko ay plainte ko teg fële ngeen jéem a àndaat ñu liggéey dem am ndam dem ñibbi. voilà. ecole bi ñuy wax ni génn na ko da koy génn ak yooyu nag yow lu ci sa gis-gis. mosoon nañ ko fi wax daaw xaw ma bu muy bëreeg euh, euh, pas rëg rëg bu muy bëreeg Tyson bu muy tëye bëreeg Tyson dañ ne woon day dem wuti euh, écurie Njàmbur xaw ma écurie lan ndax dem na àdduwul bu mu ñëwee wax ma ko fii dama ne loolu mënul na mënul na te lu ma ko wax li loolu la def waa kon su ma la déggee yéen du ngeen ko bàyyi mu génn écurie bi. non pour lan lan la koy génn écurie bi écurie bi nekk si biir këram këram la ne moom. moom moo gën a jege si mbër yi école bi waaw bon nag loolu ay wax la nii rek peut-être wax na waxi mer gone lañ ba léegi ay booy lañ waaw te bu soobee yàlla yooyu yëpp dana lañ waaw. Balla moom ci côté bi wax ji jógee nii yéen lu ngeen ci wax ak moom wala moom lu mu ci wax. non yow laaj moom mos yëg loolu dara. ah bon kay bon jeex na moom jàpp dara Balla du jàpp dara xamante nañ ñoom te bu soobee yàlla ñoom ñëpp dañu àndal waaw. yéen pare ngeen daal pour loolu am kon daal. ah dafa war a am ñun seen papa lañ. seeni papa ak seeni mag ñoo leen wër day am de bu soobee yàlla dinañ juboo waaw léegi nag dinañ juboo yàlla na loolu am ndax càmm moom moo gënoo ay yàlla na yàlla jubale ku am nit problème yàlla na yàlla jubale mais fi may ñëw nag mooy li nga xam ne moo xëy na waral sax coow li muy seen digganteeg Modou Lo mu mel ni combat seen combat bi ak Modou Lo itam du doon combat bu yomb de ah benn ban combat yomb benn combat yombu si bii kat dama cee gis ay coow jàppal bàyyil fii ja xam nga ba coow lii ñuy waxtaanee léegi am ci nii mu mel ni kon Modou Lo ah. non coow yooyu bés bu jot day am si Modou loo ak ñun ñun Modou Lo mas bu ñuy bëree euh, Eumeu Sène xoolal coow lu am li BCEAO te boo bërewu wu ñoog te moom dafa war a ñëw signé si rek mais dafa dafa nangu signature boobu dafa nangu combat bi combat am ak Eumeu Sène mooy premier combat Balla ak Eumeu Sène coow lu metti moo am foofu rayante waaw ñu ne Modou Lo moom c'est comme ça ñaar ñu am mbooloo moom toujours c'est comme ça lu ñu ñaan yàlla kay moo di génn seeg jàmm rek waaw. mais fi mu ne nu ngeen di préparé seen diggante ak Modou Lo. ah nu ñu ko doon préparé rek. Ah, amul wuute président. amul. wuute amu ci. ah amul wuute parce que bu nu wuutee du du daan bon. <laughs> soo déggee mën a wuute xam nga la bu dem INSEPS def fa ay weer tëju di entraîner loolu dafa mel ni sénégalais yi ci li ñu dégg si ñoom dañ c'est la première fois ñu gis Balla def loolu. ah déedéet ndax Balla kay jóg na fi dem Amérique bu mu combat ba mu xanaa xam kañ la Balla tukki. combat ak Modou Lo man maa pour mu waaw ko demal tukki. ñun ñu tëdd noppalu combat bi yàgg na 6 mois la dootuñu wax si presse bi duñu bàyyi leen fii ñoom ñu ngel ngel ngel ba sonn ba mu des 40 jours Balla ñëw. mais Paris ah, dëgg mais par rapport ak INSEPS ci préparation ci tëju doo gën biir INSEPS dafa mel ni mu ngi door am ci carrière am président. Ah, ngi jëm mag nag. xam nga trente ans trente et un ans dootoo gone fa léegi dawal sa bopp pour mën a toppatoo sa carrière mu gën a dem waaw. adversaire bi moo màgg ci diggante bi ba tax loolu mën a am ngeen mu jaral leen ko wala adversaire bi moom lu ngeen gis adversaire bi ci boppam. ah non mbër mu mbër mu xarañ la mbër mu baax bu bien la ku baax la booy yëpp ay mbër yu bien lañ mën nañu bëree am nañ jom ñu ngi liggéey di yóbbu seen kër di dimbale seen mbokk xam lu ma la wax mais moom moom su suñu adversaire la c'est mais nuñ ko defoon rek lañ ko defaat waaw. nu ngeen nu ngeen ni ngeen ko defee nu ngeen ko ni ngeen ko defee 2010. waaw noonu lañ ko defaat. président foo teg loolu. ah damaa xam sa mbër. xam sa mbër ba jàpp ne Modou bu 2010 ba ngeen di def noonu 2019. parce que ñun ñoo ñoo booy ñoo xale yooyu ñun ñoo leen yar si mbapat ba tollu fii ñun ay bu ñuy am 15 ans lañ nekk ak ñoom. di leen yóbbu mbapat fu ne Marc Max Mergan boo ko laajee dana la wax la wax dana ñu daan def mbapat yu rëy wala Mats Pënd Pënd bële nekk Pikine waaw bon ñun xam nañ xale yi bu baax a baax a baax a baax moom lu tax mos sa bëreeg bàll mbapat te bés bu jor ñu dajee mbapat musta bëreeg ñi may bëreeg dafa ragaloon a bëreeg bàll wala mbapat ñàkk dañ leen a wala xam nga mbapat dafa am ay catégorie mën ngaa signé 60 kee signé 80 mais bu ñëwee moom day toog ba bàll ñëw mu soog a signé parce que bàll bu signé 80 mu dem signé 60 loolu tax mos ñoo daje mbapat su ma ne déggee ko dafa mel da nga ne dafa doon daw bàll yàgg na ba tey ji mu loolu di daw bàll ba tey jii bu fekkee ne kuy ragal moom daal moom ku ragal Balla la waaw bu ko ñeneen ñi ragalee mais moom ku ragal Balla la <laughs> président président Modou Lo mi yëg ni mu fi jàppee poids lourd yi at yi passé yóbbu ardoot fàqat fi ñii ak i poids lourd ba sa poids lourd bi moom kan la fi daan daan na ponkal yu vrai yi daan daan daan na Gris Bordeaux mais daan na Eumeu Sène ak Gris daan na Yékini parce que bëriwul ak ñooñu. <laughs> ah voilà bon moom war ñoo bu ñu boole ak moom catégorie sans bon que ñooñu ñooy borom làmb yi <laughs> moom say idol yëpp lañ daan. mais yow da nga bëreeg Eumeu Sène ñàkk fa moom mu daan Eumeu Sène moo daan mu ñëw daan ko. ça veut seen dire ko peut-être Eumeu Sène du benn mbër buy taxaw fi di ko créer ak yooyu waaw ñun xam nañ ko ba muy mbappat mbappatu Baye Samb ak yooyu yëpp fekkee nañ ko waaw. kon le treize juillet nu ngeen di waajee. mobiliser wa tout géejawaay ak soppe yi di woowaa jolof nag pël yéeg yëpp nañ duñ ko daan jàppee bu njëkk nañ ko jàppee waaw Casamance ak waalo ñooñu moom ñooy këru këru école de lutte Balla Gaye ñooñu ñooy suñ kër ñun waaw per Birame ñu ngi laaj naa ko combat bi fu la gënoon arène nationale wala Léopold parce que ñu ngi ciy dégg loolu moom mu ne bu sañoon arène na Léopold lay doon ndax xëy na yaatuwaay bi parce que la muy ragal mooy combat bi bañ a xaj fële ca arène ba yéen fu leen ci gënal. Euh, arène boobu ak ak Demba Diop bu ëpp. laaj naa la ko. ndax Demba Diop 15000 places la xaw ma. ñaata la 25000. moo ëpp xam doo kaas benn affaire ban jox la ko. nga naan non non du fii ak du faa du fa la ñun depuis boobu ñu ngi rayante pour am arène xam nga wala bon nag arène bi la ñuy bëree ji moo gën. ndax wutal nañu arène lu ñu wutee ay Demba Diop naan moom mooy promoteur xanaa. la moom mooy promoteur. kan mooy promoteur. mu am Birame Ngingue. kay du promoteur daa mbërëm. ah mais moom loolu bu ko toppatoo promoteur bi kay peut-être mooy xool nombre de place yu ko yu ko arrangé yu ko arrangé wut. mais moom mënut a nekk ba di toppatoo mbërëm ba pare bëgg a toppatoo ñu nekk si kaw tribune yeeg yooyu mënul ne waay. xëy na day xalaat ñaari mbëri seen mbooloo ak xalaat. Demba Diop Demba Diop. Léopold la wax. ma ne Léopold Demba Diop. arena moo ko ëpp te fa lañ bu ñuy daan Modou Lo fan lañ ko daanee Demba Diop te foofu 15000 places la fii Arena 25000 places la doo rente ban jox la benn bijou nga téye ko naan xaw ma lii ak naan laa yooyu taxawul taxawul nañ dem ñu bëre ji ko ubbi arène bi et puis bi pour ubbi ko Balla Modou ñoo am kii pour ubbi ko. yéen pare ngeen fi mu nekk nii. yàgg na pare day tey. Balla dama koy dégg keroog Kaolack waxaat na ma ko su arbitre soufflé na ma ko defoon laa koy defaat dama koy duma daan ko. moom ko jaaroo lañ koy jaaraat daan ko mu dem. confiance bi lan la da ngeen a xam Modou Lo wala da ngeen a yaakaar ne da ngeen ko ëpp doole wala lu ngeen ko ëpp ba tax ngeen am confiance rek da ngeen fay jaar fa ngeen jaaraat dem. waaw parce que dañoo xam suñu bër waaw xam Modou Lo ñoom daal ñëpp yii blessure wala yii lii ñun ñun daal ñëpp bu ñu daanee kii tey su nii suba kële lañ lañ ko daane te du match nul ñun suñu làmb du match nul te moom mos na match nul waaw. mais Ba sa mbër pare na physiquement actuellement nii. ah yow yaa ne si ba dem INSEP kay. ah waaw mu ngi woon INSEP si wax dëgg yàlla. bu ko gisee bu nga ko gisee kaw la. man daal gis naa mbër waaw waaye nag man xamu mun xam nga yow yaa ma ko gën a jegeñ yow moom boo ko gis léegi gis ko yow xam nga li mu li mu li mu capable. woo ko léegi mu wuyu ma waaw. waaw mais nu nga ko gisee moom man nu ma ko gisee xam ban forme laa ko formu forme Tyson Junior ba bu nuy bëreeg Tyson Junior boobu sama biir kër la ne waaw boobu forme laa ko gisee kon vraiment kontaan naa si moom liggéey na waaw. te seen senior yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana léegi boo amoon adresse boo yóbbante camp Balla Gaye supporters yi ak loo yóbbante waa kër Modou Lo pour le treize. man lu ma lu ma lu ma concerné mooy ñun ñun ak ñoom xaadim Balla Gaye lu ma la wax kooku moom il faut ñu koy sant bu baax a baax a baax parce que parce que yow mii di ma interview xamoo Balla Gaye relation yu am ak xaadim Balla bu daal ñëw Dakar boo mu fekkut xaadim moo koy fat moom rek moo ko fi jox mu lekk. te mbër bu jëlee bay jox dara nit muy lekk bu mu koy nangu wóolu na ko waaw te dégg naa si ay kii yoo xam ne yi xaadim daal mooy xaadim Balla Gaye ak jabaay ñoo yore supporter yi ñu leen ñaan ñu jàpp si bu baax a baax nuñ doon def ñu def ko voilà xaadim Balla ma koy nuyu di ko ziar <laughs> do kooku kooku kooku moom c'est mon tout fu ne lay gis nga combat yi ba amee fu ne lay def xaalisam ay huit cent mille neuf cent mille moom fu ay côté Koungheul dem na fër fu ne yow xam si dara mais est mi xam na xam xam na xam xam na ko xam na ko aha lu tax nga am lu tax nga am mbër ndax xam nga ne mbër bi am non maanaam question la quoi maanaam xam nga li nga wax nii ne mu ngi koy mu ngi koy investir moo tax ma yaakaar ne est ce que mbër mi mu ngi moo baax xaadim est ce que xam na loolu dana dana ko xam parce que kii am la waaye jarbaatam lañ ko mën a wax jarbaatam la mais xat-xat nag dana am ba nit ñi dund xaw a gisante waaw mais loolu nañ comprendre rek mais kenn du bëgg bañ waaw <laughs> Euh, fi mu nekk nii nag mën nañoo dem si waanaam kàddu gu mujj gi li ngay tàggoo sénégalais yi rawatina waa école Balla Gaye ak waa Guédiawaye maa ngi sant maa ngi sant ñëpp waaw di sant waa Guédiawaye seen mobilisation nañ ko gën a yokk bii ñu defoon si Gris bii na ko ëpp Alioune Sall gaawal jóg que combat bi sa combat la de parce que euh, fële ministère des finances ministre des finances ma fa bon déjà war na jóg si Guédiawaye or na Guédiawaye yëpp photo yi dal ak yëpp mu commencé mu ñu commencé yëngal léegi parce que ñun loolay xam waaw bu combat 20 jours avant Guédiawaye dafa war a riir dugal ñëpp si combat bi bon na si ñëpp jàpp Aziz nag ñu ngi koy gërëm suñ rakk jooy suñ jarbaat boobu li mu def noonu la lu war ne moom doomu Guédiawaay la na gën a góorgóorlu Thierno Gueye bul fàtte de lépp lu ngeen mënoon rek def leen ko jëf